man damay xool sama diggante ak sama borom. c'est may wax nit ba ma si meree si li may wax. Mhm. te mu wóor ma li may wax sama diggante ak sama borom la dérangé wu ma. quand même. Mhm. bëgguma nag kenn mere ma. Mhm. mais ku ma mere si dëgg. wallaay yaa fa jaay paay dérangé mais ma ñëw lu ndaw rek. gis nañ fan yëpp ñu ngi leen dégg ci problème ñu avancé ah, waaw parce que dañoo laal ci suuf moo tax. Ah, fan yi wuyu ngi fi ñaari plainte yoo xam ne ci gendarmerie la ci wàllu suuf yoo ne tudd nañ la ci ba tudd ci sa soxna ak sa woy man dama am entreprise boo xam ne créé naa ko depuis deux mille quatre-vingt-dix-huit. Ah, ab mag am ba daanaka vingt vingt ay maamul sax vingt deux ans. oui quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix-huit. quand même. maamul benn entreprise boo xam ne créé naa ko en deux mille neuf. ba may créé entreprise en ma mm. am ay doom ma créé une autre en deux mille neuf ma jël une part may ko sama yaay jël une part may ko sama soxna ma jël soixante-quinze pour cent donc entreprise boobu boo amee suuf boo xam ne mi ngi si tur entreprise boobu nit ni bëgg ma jaay ko si ñu dem si notaire ñu dem si notaire. Hmm. parce que titre foncier la ma droit jaay ko. fudul si notaire. ñu dem si notaire. Hmm. mu jox ma avance mu d' accord ne day xaar lotissement bi desal ma bi yéexee man daf ma daf ma benn action pénale. Hmm. donc sama yaay bi nekk si si si nekkul si si turu kër gi ndax turu kër gi mu ngi société bi mais dafa nekk si statut bi. ñu dem di ko convoqué loolu la bëgg def lu neex. mais man mi am 75 pour cent la loi m'autorise à engager la société. moo tax ma demee gendarmerie la major Omar da ngeen def lu leen neex. mais yow xam nga ne bu fekkee yow yàgg nga fi xam nga lu am nga sa expérience xam nga le statut de la société me permet et m'autorise engager la société financièrement. kon bu ngeen convoqué mën ngeen convoqué. mais pas sama yaay wala sama jabar. bu la woon. non dañ jox. Euh, lotissement bu yë euh, morcellement bu yéex dama ñu su notaire jox na ma avance descend ma nee na morcellement bi dafa yéex loolu dépendre sama volonté. ñoom mhm. ba ñu xoolee ñu ma dañu ma garde à vue ñu garde à vue ma déglu la ñu woo domaine yëpp convoqué waa domaine gis ni suuf ah la maa ko moom ñu ma demal ñibbi. neexul si xool quand même. yan foncier laa présenté. sama droit réel. lépp loo xam ni kayit am na ko suuf am na ko si kër. ma mm-hmm. présenté. très bien te malgré tout ça daf nañ ma garde à vue. quand même il a fallu ñu ko ñu toog ba lendemain waa demal ñibbi. moo tax programme bi garde à vue beeg mandat dépôt na moo tax ñu mu dal bëri na. xam nga injustice baaxul. baaxul stabilité réew. ah euh, loi justice bu bu équitable daf fi baax. bu nekk rek. dañu tax ñu def loo xam ni bu bu ñu ko defoon yow. dana neex. très bien c'est pas parce que nag am nga nombre tànk. Mm-hmm. colonel la wala. général la que damay def lu ma neex. gis nga souvent la boule la boule la la boule tourne. très bien te souvent xoolal. day tourne mi absolument alors président euh, est-ce que mën nga dikkaat ci jafe-jafe président Macky Sall ak Amadou Ba c'est quoi le parce que depuis péripéties euh, présidentielles yi. Macky Sall jàppale na Amadou Ba non non jàppale bi dafa des demi mesure la am na ñu woo ci suuf ne non bu leen ko jàppale ñi mën a jàppale leen ko Amadou Ba dem élection ni nu ko gañee ñi ne Macky moo jàppale ñële. kenn xamul en fait ce qu'il en est diggante Amadou Ba ah, kenn xamul ce mais am na ñoo xam ne xam na si dara. Hmm. képp kuy ministre. Hmm. yaa ma laaj nag quoi. waaw eh, maa la laaj vraiment maa la ah, bu baax la. mais man li ma ti xam. Hmm. su ma dëgg laa wax. président diggante Amadou Ba ak Macky Sall problème xaalis la. problème xaalis la oui. Uh-huh. problème mu Amadou Ba. ak problème mu Macky Sall problème mu xaalis la. doo gis kenn ku la wax leneen nag. Hmm. day jaaxal ñu bari. tudd ñu problème mu xaalis bi. Hmm. kenn mënul comprendre pourquoi lan moo nekk diggante problème mu Macky Sall ak Amadou Ba boo waxul xaalis doo wax leneen. Hmm. problème mu xaalis ban. problème mu xaalis la problème mu détournement àllu réew mi problème mu lekk àllu réew mi seen problème la ñoom ñaar. ah oui dafa laal ci or. boo nekkee njiitu réew. fas yéene jalgati. parce que ne sàcc alalu réew mi boo gisee ministre bi sàcc bu la dàq sàcc doo d'accord ci loolu. ah déet loolu dafay fekk ji li Ousmane Sonko waxoon ni Amadou di yàgg naa jël ñu ko tegal. kan Amadou ba yàgg na jël. ñu ni ko tegal. en tout cas daal li Ousmane Sonko wax man xaw ma fekk xaw ma loolu ma wax. loolu ndax Amadou yàgg na jël ñu ni ko tegal. Mm. moo xam fu mu waxee loolu. mais man li ma xam du Amadou ba moo ma ko wax. la. Mm, mm. mais quand vous dites que boo bu dee. bu bu ah. bëgg a njublan ah. gis ministre bu ko dàq njublan ah. te ni problème mu Amadou Ba ak Macky Sall wàllu xaalis la kon kay day mel ni ci wàllu boobu Amadou Ba moo lugal. am nga du ma wax li Sonko wax damay wax li ma xam. waaw li nga xam sax moo la moom moom la ñuy. du ma wax li Sonko wax. Mm-hmm. xam nga maanute. Mm-hmm. bokk na si wax li nga xam. Mm-hmm. ragal yàlla bokk na si wax li nga xam. man du ma politicien boo xam ne damay wax pour neex doomu aadama. c'est ça ma politicien boo xam ne damay wax pour kii de wax na lii wala gëm la loo xam ne. wóor ma ko defal du ma ko wax. lépp lu may wax damay xool sama diggante ak sama borom. Mhm. te wax nii képp ku ma wet dina jël kaamil waat ko. Mhm. d'accord. képp ku ma wet dina jël kaamil waat ni Arame Faye li mu lim la wax du Amadou Ba moo ma ko wax. fekkewu mhm. ma Amadou di ko def te Amadou Ba waxuma ko Macky Sall moo ma ko wax sama nopp ma dégg. dafa am benn pro diggante Macky Sall ak Amadou Ba problème mu xaalis la. xaalis la. Hmm. am na une fois avant deux mille vingt mu am benn homme d'affaires boo xam ne du sénégalais étranger la ñu fekk alal ju bari Sénégal mu waroon liggéey liggéeyu ko. Hmm. kooku dañ ko war a topp. Hmm. waroon ko poursuivre mais gis naa kenn defu ko daanaa dégg ñu koy wax nag. mel ne Yérim Seck di ko wax def naan ñii jox la ñaan xaalis réew bi lekk ñu liggéeyuñ ko te encaissé nañ ba pare mais loolu au début ko woon parce que jàppoon naa ñi ñemewuñ yàlla à ce point léegi homme d'affaires boobu daf ma santoon liggéey man yow waaw d'accord liggéey privé la hmm. après mu dem fayu ma sama xaalis ma ba dégg ni mi ngi fii hmm. ma dem fekk fa en 2020 mu gis moom ma gis ko ma ne ko fay mu sama xaalis mu fay mu sama xaalis mun ma est-ce que mën naa la jox benn montre pour président Macky Sall boobu maa ngi Macky Sall xulawuñu. Mhm. defatuma activité politique mais xulawuñu. Mhm. mooy ba dama daal bàyyi ko mu dem mu dem. mais defatuma activité politique en deux mille vingt. Mhm. mu ne amul problème ma jël montre bi téye dem kër Macky président Macky. ni ko gis naa diw mun ma ah mu ne waaw. man kon daf ma amee woon xaalis ma dégg mi ngi hôtel tàngam. Hmm. ma dem mu fay ma sama xaalis. Hmm. waaye nag jox ma benn montre pour yow. waaye mu mënoo indi ma montre ma ne ah xaw ma ndax c'est truqué wala dara. Hmm. mu mënoo kooku sama la. li wax. mu dëgg loolu la ma jël ma est-ce que mën nga ko wax. est-ce que mën nga ko gisaat mu ne ko waaw ah bon pourquoi pas mu ma demal nga laajal ma ko ñaata la jox Amadou Ba ndax Amadou Ba moom dafa ne moom tant tant de milliards la may jox mm-hmm. mais Amadou Ba tant la ma déclaré. mu yi maam booy jaaw doon wax. loolu sax li mu wax rëy na exemple mu ni exemple lay wax. Mm-hmm. masalan laajal ma diw ñaata la jox Amadou Ba ndax waxoon na dix milliards la may jox mais Amadou Ba un milliard la ma déclaré. Hmm? ma xool président Macky Sall sama xel nekk si ñoom yërëm li mu waxoon. bien sûr naan am na ñoo xam ni. Hmm. ñu ngi leen fay alal réew mi te liggéeyuñ ko te kenn topp leen police kenn topp leen gendarmerie moom mun ma naa dem laajar waa ji ñaata la jox Amadou Ba. Hmm. ma ne ko dégg naa leen wax jóg dem sama am boobu laa gëj kër Macky Sall. laajoo waa ji ñaata la. du ma dem du laaj waa ji la joxaat ma dem du dox lu xaraam. waaw loolu alal ju xaram la. d'accord alalu réew la. kooku dañ ko waroon topp. c'est la comprendre xam nga kooku si Lamine Macky Sall la génn. c'est la comprendre ni kii jox kenn topp ko. Mhm. li mu encaissé. Mhm. dafa ceebal. Mhm. président ceebal yenn ministre. te Amadou Ba te loolu Macky Sall te loolu. mooy boo xam ne président wax na ma ko. te bien avant loolu. mos na am coow am. am ku ñëw président yónni ko ne dama nga ne Amadou Ba qu'il fasse attention j'ai ces dossiers. benn nit kooku ñëw wax président ni quoi ah, wax naa ko de waaye nee moom tamit il a tey il a tey dossier. Ah, loolu man loolu bu secret bu secret du ma ko wax. jataale woon fekk am na ko président yónni beaucoup d' argent bu ma ko daaxee dafay dem dooleel opposition bi. Mm-hmm. loolu c' était mais man euh, euh, na ko. d'accord le moment où bi nga ko dindee ci gouvernement bi daf ko doon surveiller comme du lait sur le feu. voilà loolu moo ko si laa mel lu ma dund la. muy lu ma naqadi nag. muy lu ma bett tamit. lu tax ah que daf ma xalaatu moon loolu si Macky Sall. jàppoo woon ni day laal. xalaatu ma ministre ministre yu bëri du ñëpp am na ñu jub ñu si nekk. Mhm. am na ministre yoo xam ne mos naa dégg benn ministre ni ma sa goro de moom vraiment boo ko joxee tuuti la lay ceebal quoi. ah oui. ah oui ma lay wax dëgg moo dëgg laa wax sama diggante ak sama borom. dégg naa joxem dafa lan. <laughs> non non boo amee marché ministre bi indi xaalis jox ko. bu koy ceebal tudd la koy ceebal. <laughs> mais loolu moo ma sëñ Tallou fàttalikul ma wax la benn affaire fàttalikul. ban ministre si mm-hmm. ah mais ni ministre yi da leen di dàq kenn dox ko cër kenn ah, ma fii la toog. am lu mu tëral nii laa koy doxalee ministre faale wuñ ko. Mhm. fii la toog Mame Mbaye Niang mu ni ma Macky ni fii laa bëgg ñu jaar Mame Mbaye Niang jaar fu ko neex. Adama ah, ah, foofu la ak ñeneen ak ñeneen. jàppoon ni Mame Mbaye Niang jege ñaale jege ñaale mu jege woon président ba pare euh, waa kër euh, Mame Boye Diao yi nee nañ Mame Boye Diao ne doit absolument rien mosul a jox dara musul leen laajante dara. kan nanu ah y' a un de ses proches là euh, y' a un des proches de Mame Boye Diao il dit le président a dit que il ne doit absolument rien à euh, monsieur Adama il ne lui a rien demandé. maam bu ñu boo génnee. moo jox la ay notification yoo xam ne. maam booy signé na ma ko. que maam booy di jox yoo xam ne. c'est pas au ba ma koy fay xaalis bi. ba ma koy fay xaalis bi. waaw c'est te ba ma koy fay xaalis bi. yéen. danaa nañ indi témoins yi fa nekkoon. bien sûr ngeen gis témoins yi. isa mhm. ngi dëgg après ngeen Mame Boye. Ibrahima Pouye man côté boobu sax je crois que loo xam ne c'est entre Mame Boye Diao ak Adama Faye. Mame Boye daal bu dina ñëw. en benn dañ ko jaay je moo tax ma ne am na loo xam ne du ay. police wala benn boy kii. Mhm. il a donné des des des des des, des exclusivités donc c'est ça quoi man ah, ah, ah. man ça me permet euh, d'abord entre parenthèses waa Grand ñu ngi leen nuyu comme ku mel ni Ablaye Diallo Muller. Mm. Mm. Mm. il est en direct. Thiendella Kébé aussi. nee na nee na tey Grand Gueule 3.0 la ñu. waaw effectivement waaw mais Ablaye Diallo moom vraiment man dama koy remercier parce que lundi ba dimanche. il est en direct il a aussi Mouhamed Dia aussi. très bien dëkk euh, fii ci SICAP. moom moom heure julli moom lundi ba dimanche moo koy yónnee. allez-y maa ngi ko bu baax de passage. ça va me permettre de rebondir. parce que tey sa diggante ak président Macky Sall. waaw sa goro la. bi muy sos alliance pour la république avant muy sos alliance pour la république en 2000. le président Abdoulaye Wade doon campagne président Macky Sall mu ngi woon ci bannière am di ànd ak moom di campagne. yow nga ànd ak président Macky Sall doon ànd ak moom ci campagne bi am loo ci defoon. mu jóge ci loolu ñëw ci alliance pour la république. Grand Yoff man bi fa dëkk xam naa ne vous êtes membre fondateur de l'APR Grand Yoff. yaa fi njëkk a taxawal cellule commune de APR euh, ci ci biir commune bi et cetera. tey ñu dem ba gis tey sa diggante ak président Macky Sall lii ngay wax nii xëy nañu ñu bëri mun na jàpp ne waxu biir la. mais aussi mën nañ jàpp ne c'est un citoyen sénégalais honnête qui s'adresse aux Sénégalais parce que dafa jàpp dëgg moo ko ñor. son discours n'a pas changé. n'a pas changé euh, te ni ñu la ma sa xamee. Euh, lan moo andi réel réel problème bi am sa diggante président Macky su fekkee problème c'est quoi le problème. parce que problème am na nag parce que ñoom ñaar dinañ ba xàjjaloo. ci élection ci ci politique. Mhm. ba deux mille vingt et un jëm deux mille vingt deux mille nga toog sa kër. lan moo andi sa diggante président Macky Sall li ma Macky wax li ma may waxoon si affaire xaalis boobu. Hmm. j'étais trop déçu. ma toog sama de ça dafa empire ou après. ci élection li ba ma ba deux mille vingt un. affaire Sonko ak ay Sarr bi man d' accord ma si. parce que affaire bu ñaaw la. ci ay ko teg. ay principe bi d' accord ma si loolu. ma d' accord ma si parce que ba affaire bi amee am na ñu nekkoon si gouvernement président Macky ak ñoom dañu woon voilà. am nañu occasion pour liquider que définitivement. Mm. loolu nag du yëfu yëfu gëm yàlla du doxalee noonu. Mm. on se rappelle man d' accord mu woon ci loolu. on se rappelle voilà te loolu waxoon naa ko ci biir suuf laa ko parce que la ñaan waxtaan. Mm. entre famille wala bon famille politique dañuy waxtaan ci suuf joxe conseil ci suuf. Mm-hmm. la lay salte laaf en famille. Mm-hmm. bu ñu ko déggul nag ñu mën wax si kaw. Mm-hmm. donc loolu moo amoon. ñoom d' accord uñ ci loolu d' accord uñ sama position. alors ñuy def leen neex. comme d'habitude yàq ñoom boo ànd da ngay ànd ak ñoom noppi. boo àndul ñoom ñu jéem a damm say këdd yàq sa liggéey. loolu garaawlu ma ko. yàq nañu sama liggéey te loo xam ne nag joxuma ko sama liggéey bopp la ma at teg lépp si loxo suñu borom mais Ibrahima Pouye Macky Sall xam naa ko depuis 1991. 1991. mooy xalal bu ndaw. ba 2021. xam naa ko pendant 30 ans. Hmm. te la may wax sama diggante ak sama borom lay wax. bu ma waxee nag dina am ñu mer. Mhm. c'est normal. ñoo mhm. xam ne Macky Sall moo moo moo. moo niinal seen moo niinal añ. <laughs> Euh, ñoo xam ne fu fu fu ñu tag. Mhm. ñooñu mën nañu wax. bu ma taxawee depuis 1991 laa ko xam ba 2021 muy 30 mu may wax ni des si war a maandu te li may wax muy ànd ak sama dégg sama borom ni des si war a maandu. 33 ans euh, xam nga Senghor. dëgg dëgg baax li may wax Senghor xam nga rey na nit bu mu fi nekk rey na nit. Senghor ba mu fi nekkee boo ko seetee l'histoire créé na un certain Moustapha Lo. Mhm. Senghor gis nga lu mu def Mamadou Dia. Senghor toroxal na doomu aadama. lan la mhm. mujjee. Mhm. lan la mujjee. il a il a mal fini il était président gisul sëtam ay doom dee si kanamam. Macky moom xam na s'il a fait pire que Senghor ou pas je pèse xam naa li may wax moom il fait pertinemment s'il a fait pire que Senghor ou pas. mais yaa moom problème politique la. wala bu dul politique. non problème politique la façon dont li may wax Ibrahima Ibrahima non non amul leneen lu ñaaw lu loolu. mais li ma xam si moom mooy ko ne gorewul du ma wax lu ñaaw du ma sos du ma wax lu ñaaw. lii bu ci leneen dolli koo gën a ñaaw. Ah, bu ci lii non non wax lu ñaaw parce sa goro la ba léegi. oui mais non en dehors de c'est la famille. mais dañu bokk dañu bokk milieu politique. du Sénégal. dañu wax oui ma dehors de c'est la famille. mais bu dee sa goro tamit même bu dee sa goro. waaw. faagaagal. moo tax may laaj c'est quoi la. waaw bu lay faagaagal. moom Macky Sall bu lay faag Macky Sall faalewul kenn. dëgg la mu koy. kenn toppatoowul ma sàmm toppatoo ma dem bu la bëggee faagaal du xool gorom nga du xool mbokk nga du xool dara waaye léegi yow booy wax loo xam dëgg la da war nga xool loolu tamit déedéet noo mën gisee ñu waa Macky Sall da tëj na ko wala toxal na ko ñu ne gannaawal Macky Sall mën na ko def ku neex waaye moom kenn wax ci moom kenn war wax ci moom dara bu Macky Sall jógee di toxal gor wala di jéem ma yàqal gor ni nga noppee gor moom li mu xam na nga si noppee noonu même bu la neexulee. bien sûr c'est la ma wax si moom nit ki mën ko dindi. il ne respecte jamais ses paroles. faalewul xam naa mais mais avant Ibrahima di la dagg da wax lu am da doon jëm fu am solo mooy Macky xam ne s'il a fait pire que. que Senghor est-ce que day mel ni luy dëggal peut-être ñenn ñi wax ne de ba jun yàlla te ñi fi faatu yëpp moom loxoom génnu ci. mais bu président Diomaye bu fekkoon ni. wax naa sànq loo xam ne ca waxal naa ko si biir. mooy bu dul lu ñu déggoo ci waxtaan ba kon yu baree bari duñu ko def. da ah. jàpp ni waxtaan baa tax topp yi ñu ko waroon a topp. man loolu la jàpp dama jàpp ni waxtaan bi ñuy waxtaan. topp ñu war ko topp ñu topp ñu ko war topp. ñu abal ko avion bi ay fan. dañ ko war a def mandat d'arrêt international. ah oui indi ko waaw. Mm-hmm. ci mm-hmm. bu ñu amoon majorité dañuy dindi as amnistie bi dañu koy dindi. la de. non ñan ñoo ko fi def. diggante ñaari pàcc. Macky Sall moo ko fi def waa benn boo ko yaakaar. Macky Sall moo a assumé mais ko waxtaanee bu jubóo si tamit. ñoo amul majorité. Mhm. ñoo amul majorité ñoo ko fa teewoon ça voilà ñoo amul ñoom bu ñu taxawoon rek. bu leen arrangé woon. ñoom duñ ko defee noonu. mais pour que amnistie bi. bu la woon ne rayoo. sàccoo pour que nga def dañuy waxante dëgg lu ñu pencoo moom pencoo moom pencoo moom dañuy waxante dëgg rek wala ñu wax leneen. est-ce gaaw mais bu fekkee ne ban jeexital la am bi ban jeexital la am ci élection yi. quand même amatul benn jeexital. est-ce que jàppul woon ni doonoon na gën a ñaaw ci moom que le président Bassirou Diomaye Faye génnee ci kaso bi di jugal li ci palais. que mu ne naa ko génne ci diggante bi mais noonu la demee dafa génn ci kaso gi. dem dem ci palais. bien sûr Diomaye n'a pas été jugé. bien sûr est-ce que gën a ñaaw ci moom que Diomaye et Sonko restent en prison en ayant une victoire écrasante dès le premier tour. mais amnistie bi taxul Diomaye génn dafa tax Diomaye génn. eh bien bien sûr parce que. ñu defee lu la jugement. non y' a pas de jugement. donc léegi bu ñu lay jàppee jugement mooy tax nga génn wala wala jugement mooy tax nga génn. bien sûr. jugement tax moo tax nga génn. bien sûr. Euh, Sonko n'était pas candidat. Mm. c'est Diomaye qui était candidat. Mm. bien sûr kon moom xam na ne Diomaye dafa gagné. ah mais bien sûr. moo tax mu mu ko génne. le vent de Diomaye amnistie bi concerne wul Diomaye mi président. mais Adama franc parler bi nga am nii. est-ce que yaa koy yaa ci en tant qu'homme politique parce que fii politique yi ni ñu leen xamee mooy. naxante euh, naxante boo waree wax dëgg sax di ko raay wala léeg-léeg mais mais. mais pour lan depuis depuis bu ñu xamee Adama Faye même constance bi la lu mu war a wax da wax ci digg bi lay jaar am franc parler bu nga xamante ni lépp lu la wax na ci dut baaraam. est-ce que loolu euh, yaa ngi koy mesurer ci ab politicien. non xam loolu lay mesurer. neen euh. laay mesurer sama àdduna. Hmm. su ma diggante ak sama borom. macha allah li may mesurer mooy li ma seq doomu aadama xam naa ko. et est-ce que du lii. mais loolu ñu war defaraat bi nga xamante ne a servir ñu bari. mais c'est pas normal nga tiim doomu aadama mu lay xool nga koy xool nga koy wax loo xam yow wóor na li ngay wax daal doo si dëgg wala wóor na li may wax nii du ko def. te yow amoo benn chaîne. waxu musiba la nga jox ko réew. am na wax boo xam ne dafa ma naqari man. waxu politicien. ah lii waxu politicien la bu mu jàng nga dóor sa doom oh, wax boobu dafa ma naqari. c'est ça dama jàpp ne suñu borom daf ñu indi fi pour ñu jaamu ñu pour ñu ko. te xamoon na dinañ politique pourquoi qu'est-ce qui nous empêche ñuy wax li am qu'est-ce qui nous empêche ñuy wax dëgg. important mais y a rien qui ñuy wax dëgg te yàlla tax. important alors waxal li nga mën. waaw li nga mën. waaw. allez problème yaa ngi ci hmm, foncier bi. foncier bi xëy na wax na ci tuuti. mais la BTP de boo dégg le président du Pastef. prolongé nañu aussi kii bi ah. muy wax naan. près de quarante cinq jours. Euh, bi gën suuf si nga xam ne moom lañ bloqué euh, yóbbu nañ ñu bari au chômage près de vingt cinq mille. Mm, c'est évident ouvrier dem nañu chômage. Mm. Euh, cimenterie yi usine ciment yi ñu ngi wàññi seen production ñu ngi koy naqarlu. baisse mm. de production lañ def. ferraille yi jaayatuñu quincaillerie yi jaayatuñu ñi nga xam ne dañoo moom suuf sax suuf soosu ñu war ci def seen i projets yi bopp. état du Sénégal prolongé waat na affaire bi. ba quarante cinq jours ba quarante cinq jours bu kenn laal ci dara. wàcc boobu bëgg naa nga leer ñu si mel ci BTP beneen mooy ci biir campagne wax na ne ay këru professeur enseignant yu ñuy tabax ci Ourossogui gi gis nañ fa benn kër goo xam ne motul quinze sur dix muy cent cinquante mètres carrés. à hauteur de quelques milliards milliard cinq de francs CFA. yow mi ci wàllu BTP ne ci wàllu bâtiment est-ce que loolu logique na venant d'un président de parti Pastef et premier ministre qui aussi dit que gis na moom gisal na boppam bëtam ci compte ancien dignitaires yi fi nekkoon benn compte boo xam ne mille plus de milliards mu ngi ci loolu laa bëggoon nga leeral. wax ci milliards. waaw mais yow ci douze ans man ma loo xam ne man fekkewu ko. da nga may problème. Hmm. mais kër goo xam ne cent cinquante mètres carrés. moo tax sax. ñu ni un milliard lañ ko tabaxee. un milliard six cent ko tabaxee. c'est le président du moom lañ ko tabaxee. waaw d'ailleurs ñu bëri démentir nañ loolu. loolu lañ ko tabaxee. waaw loolu lañ ko tabaxee il veut dire am na surfacturation. Ah. loolu mooy am na surfacturation. loolu rek la mën a doon. bu fekkee dañu fay un milliard pour tabax kër gi nga xam ne matul cent cinquante mètres carrés même bu dee R plus quinze. même bu dee bu gis nga cinq cent mètres carrés. Hmm. nga tabax ko R plus quinze. Hmm. mooy nekk trois milliards. cinq cent mètres carrés. nga tabax ko R plus quinze. mooy nekk cinq cent mooy nekk trois milliards. Mhm. bu dee nag cent cinquante mètres carrés boo ko tabaxee R plus quinze mën un milliard standing bu kawe luxe. Mhm. tey plus un rek la. léegi plus un léegi xëy na bunt or la ak jamaa. R plus un xëy na bi ah. ah dañ ko flamé ak or. Ah. mais plus un. Ah. mënoo ko tabaxee. Eh vraiment vraiment. Eh ak autant les mille milliards bi bëgg xam mooy. Mm. toppuñu dama dëgg ñu koy wax. Mm. bëgg xam ndax dafa ni question laay laaj nag. Mm. ndax dafa ni compte bancaire wala dafa ni compte rek. question laa laaj. compte naa ci benn compte boo xam ne. non Ibrahima dafa nag. un ancien dignitaire du régime. dafa nag bu dee compte bancaire la. banque yi mën nañ ko mën ko ngaaral. parce que li nekk si banque yi vraiment secret la. banque yi mën nañu ko leeral. Hmm. mais bu dee dafa ni gis naa un milliard ci benn compte. mille milliards. dafa gis naa astafurlah mille milliards ci benn compte. plus de mille milliards sax. ah te précise ndax compte bancaire la. Hmm. wala ndax compte impôt la parce que impôt buy verser xaalis. booy liggéey si booy liggéey compte impôt. waaye dafa nànk rek booy liggéey si impo trésor di la fay. daf lay si numéro compte la lay fayee. yaa ngi dégg dafa am benn numéro compte waxuma compte bancaire de ñoom impôt seen impôt seen ay chiffres seen ay livres am numéro compte bu ñu lay fayee. cela n'a rien à voir ak compte bancaire. mais c'est un compte bancaire un ah. dignitaire d'un HLM. Ah, waaw loolu kay banquier nañ banquier nañ banquier euh, ma jàpp ne compte bancaire la yow lan nga ci mën a xalaat. Ah, waaw ma la nga wax ci li ci mais en tant que a sénégalais. non xaw ma ndax dëgg la mille milliards na ci compte wala. naa nga xañ na si kay tontu na la nee na xamul ba ci mille milliards. compte amul plafond. bind lu ñuy bind rek la. xaalis bi ko denc compte dañ koy denc si banque bi. Mhm. compte bi dañ ko fay bind rek. léegi nag bu fekkee ni banque banque yi dégg ay banque yu ko am ñu ko dafa am bari am ñu ko démentir. bien sûr donc banque yi dañ def man xamul nekk si compte bi xamul nekk si banque bi. Mhm. je me toujours dit mais lii compte bancaire la. wala compte impôt la compte paiement trésor la. non foofu parce que moom précision bu attention Ibrahima Pouy bu fekkee précisé wul. précisé wul nañ ci tey bu dee compte bancaire la moo tax ma laaj ndax dafa ni compte bancaire wala compte de paiement. bu dee compte de paiement dafa am compte de paiement trésor bu nga xam ne da lay fay. mën na la fay sur plusieurs banques différentes mais sur un compte de paiement. pour logique pour logique. quand on un ancien dignitaire. d'un régime du kooku du jël du du soxla compte impôt. on parle du compte bancaire man. hankay donc c'est pas. marché attention marché impôt attention. non on ne peut pas parler de marché Adama la question elle est très bien précise. non milliards laa gis ci compte banque. Ibrahima Ibrahima Pouy. c'est précis compte banque on passe directement à une banque individuelle. donc on ne pas d'impôt. hankay. xaalis bu jalgati fu mu jaar c'est des paiements de trésor xaalis bu ñu jalgati fu mu jaar. waaw jalgati fu mu trésor marché yi yàgg fu mu jaar te des paiements du trésor am na yoo xam ne. mais n'a pas parlé marché ni de paiement de trésor. sur le foncier Adama monsieur Faye yow ci ci loolu nga nekk di ci yëngu ci président Macky Sall amoon na jamono mu ne problème yi ñu ko doon wax yépp ci wàllu foncier la. tey jii nga nekk ci wàllu foncier bi nga gis le président Ousmane